maa ngi leen di ziar. waaw ça va lii nu muy duggee. ah ok. c'est bon. baax na. nuyu nañ la. maa ngi leen di fay yéen ñëpp di leen ziar. alors gis nañ que ni tey teew nga ci kii di waajuru Sumbul ak Goury Bàcc yi génn àdduna nga ñëw teew fi def diir bu yàgg yàgg également est ce que mën xam sa sa wëllërante ak diggante sa diggante ak famille bi di famille Bàcc bi. jërëjëf dañu fi ñëw en tant que am fi ay soppe ak li ñu yàlla boole ak ñoom suñu digganteeg Balla Gaye te gorom moo faatu suñu digganteeg Goury Bàcc li muy soxnaam suñu digganteeg Sumbulu waaye itam suñu digganteeg Ablaye Diop xaas ñeent ñii ma la limal ku ci nekk rek waroon naa tax ñu déplacé wu ndax yàlla boole nañu ak ñoom ñu am ak ñoom relation yi rafet te nit su la yàlla booleeg moom su amee bànneex di la gis bu amee naqar war na laa gis alors oustaz mënuñu la bàyyi nga dem ñu wax a ñoo Sénégalais yi gis nañ que actuellement li gën a fës ci wàllum showbiz bi mooy coowul bis Ngoné ak Abou Thioubalo mu nekk mbir bu nga xam ni mel na xay wante si turé daf ci am ak mel nan nga gisee kàddu man nan la ñëwee ci dëj di laaj ay choses. dañ koy jàllale parce que c'est une pour que am problème si dañ am problème. yal na rek ku nekk baal ñu nekkaat ci jàmm. Hmm. amoo dara loo ci yëkkati leen lu doon. <laughs> yal na kay doy na lépp hmm. ñu nekk at Tidjama Salam. Euh, diine may na la la seetaan nga yëkkati alxuraan te anam boo xamante ne ko amul njàpp waru koo laal. innahu jërëjëf jërëjëf papa jërëjëf maa ngi ziar. innahu la quraanun karim fi kitaabin maknun laa yamassuhu illa almutahharun yàlla dafa wax ni sama kaamil bi moom ko amul njàpp bàyyi ko fi. kenn waru koo laal te amul njàpp. Mm-hmm. loolu moom sharia moo ko wax kon ko amul njàpp waroo laal kaamil. la xam nga xamante ni moom bi muy wax waxul Abdou Diouf la waxul kenn dañuy daal ku amul njàpp bu mu laal kaamil bi ku am njàpp laalal ku amul njàpp bul laal. mais yëkkati ay ci. ah moom daal xam nga man na fi mu ne gisee nii damaa bàyyi ci problème mu jàmm. <laughs> waaye nag si moo tax question wu diine laay tontu. diine mhm. dafa tere wax ju ñaaw mhm. moo xam nga nekk ci kaaba gi mhm. moo xam nga nekk ci jàkka ji moo xam nga nekk sax sa biir néeg wax ju ñaaw daal diine daf koo tere ku ko mën a bàyyi na ko bàyyi rawatina téye kaamil ak téye kaamil même boo teewul kaamil dañ la ko tere téye kaamil di ko wax ak nga ñàkk téye kaamil di ko wax wax ji lañ la tere kon téye kaamil bi du ci dara. waaye lislaam may na nga waat ci kaamil même bu fekkee ne sax li ngay wax dëgg la est ce loolu lislaam may na ko ngay tuur sa loxo ci alxuraan. alxuraan moom diglewul ni waat ci kaamil dafa xaram. Mhm. booy waat alxuraan kenn du ci waat. Mhm. bu Sénégal dañoo gaaw ci barke téere maam yàlla. génne kaamil waat alxuraan kenn ci waat. Mhm. diina daf ne kuy waat ci ñett ngay waat. bi waata. billaahi. wallaahi. tallaahi. mooy bi wata mhm. ci lañ ko tënk bi wata mhm. ci nga mën a waat mhm. billahi wallahi tallahi dóor ci kaamil di waat amul benn sens xay wante suturé lan la ko lan la ci lislaam wax ci lislaam da koo tere jul ay jullit dañuy suturaalante dañuy bëggante dañuy soppante dañ lay wax lu ñaaw sax nga dëgg ci sa tànk muñ xam ne luñ la waxal ci lu ñaaw rek yonent bi déggoon na ko mais ngay muñ di jëlal di jéggale heureusement nag Sénégal problème bi fi am mm-hmm. malheureusement mooy kenn baalatul kenn la mm-hmm. waxee dara samedi mm-hmm. dimanche bu xëyee tontu wala bu ñu la dara ci suba gi balaa ngaa tëdd boo ko liiree daf laa def tontu demeewul noonu dañuy baalante maa bàyyi wax ci problème bu jàmbur lan moo ko indi oustaz dafa dégg lu ko neexul wala non man xam nga ne ragalu ma am na moo tax nga bàyyi wax problème bu bi mooy Sénégal day bari problème yi fi am yoo xam ne boo ci duggee wax ci ëllëg jàmm day am nga rus te man sama xol day sot yenn saa yi damay nangu geeru jàmbur wax ci balaa ëllëg a jàmm am mm-hmm. ma faf jënd nag comprimé maandu naan ko moo tax ça reculé diine rek. da ngaa bàyyi jënd guerre bi ni koy waxee jaay ma guerre. bàyyi naa guerre léegi comprimé mandu laa jënd. jërëjëf mënuñu daana te waxuñu ci problème mu euh, Amina parce que Amina ak Kouthia dañu euh, ban taxawaay nga ci am pour euh, defal jàmm rek. jàmm que def nga ci médiation pour ñu bañ a egg foofu. sama yoon nekku si. ah bon li mu doon li mu doon xamal nga ci indi moo ma fa yóbbu. dëgg la ah. moo fa yóbbu kay dara newu ci. waaw moo ma indi moo ma yóbbu waaw. est-ce que kon ñaanal nga ko njëkk doon. <laughs> moo ma yóbbu daal moo ma yóbbu jeex na amul leneen moo moo taxaw ci moo la yóbbu parce que fekkee moo la yóbbu tey mu ne ci jafe-jafe doon na gën a rafet gën a nekk wëllëre nga taxaw défendre ko wala nga yëkkat sa kàddu bi ma nekkee Italie. dañu déggante man ak moom. Mhm. lu ma waxtaan yu am solo yi ngay def. Mhm. warul yem ci internet dafa war a tasaaroo mhm. addina bi yëpp di ci jot lu ma mën nga ñëw télévision Futurs Médias dinaa ko def mhm. moom ku ca waaw ma lu ma mën pour nga ñëw ci télé bi ko def mhm. ma ñibbisi gisante wuñ ma ak moom ma gàmmu Tiwaawan jot ñu invité ma ci plateau TFM maak Oustaz Pape Hann ma waxtaan ba àggal ñibbi tëdd deux heures du matin ma yeewoo gis appelu Pape Hann mu ma booy sa waxtaan wi toj na dëkk bi ma ne ko lu xew mu ma Ndiaga Ndour nee na da ngay suba TFM ah, mhm. ma ne ko mais yéen ngeen ma démb mu ne ma ah loolu la wax de mhm. ki ngeen invité woon tam jógee Italie kooku di waxtaan mhm. na ñëwaat suba kon jaareewul waaw jaareewul ci moom amoon na yéene bi te doon na ci dox mais la ma waxtaan ca plateau gàmmu Tiwaawan moo apprécier patron yi ba ñu mais moom moom doon na ci dox nag lu mën mm-hmm. pour ma ñëw dëgg yàlla xam nga loolu ma wax ko wàññiwul dara ci moom te loolu la yàlla dogal parce que mbër mu ndaw mbër mu mag moo gis ci ci bërëm ba pat la jaar mm-hmm. léegi nag loolu nag bi mu amee njaga woo ma ma ñëw mm-hmm. ma woowee ma ñëw wax waxtaan ñu defal ma contrat may liggéey li moo ma dugal télévision Futurs Médias accord moom bëgg-bëgg bi nga xamante ne na ko ci. waaw kay amoon na yéene bi dox na ci lu mu mën wax dëgg yàlla moo ma njëkk a wax ni ma sa extrait yi ñuy dagg di ko estati su ma sañoon mu génn ci télé bi. di def émission di ma tudd di jël samay waxtaan di ko teg ci bir émission loolu mënuñu ko ko fay parce que tay fu nu àgg rek japp na ni yene won nañu ag fu karaw raw réew mi nak def lu baax ñu wax ko da jafé légui mais ñu yëg né mom démissioné na wala dakk nañ ko bir TFM yan kàddu lu ci yi ma sha allah. ma sha allah ak moo doon ñaan nekk modalité yi nga xamni ñoo nek nekk. yàlla na ko yalla defal jàmm sama yonne ko ci si. jërëjëf Oustaz. jërëjëf jërëjëf.